asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi amaan nañ mbégte ci taxawaat fii nga xamante ne bii moo di Daaru Salaam bokki Barga ci liggéey bi nga xam ne Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh mbakke at mu jot buñu ko liggéeyee ba ba mu toll fii dana fab mbadd tool yi te mooy bàcc gerte gi jëri ko roñ ngooñ mi roñ gerte gi teg ko ci loxol rakkam di xaritam di Serigne Amsatou Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Amsatu at mu jot da ngeen gis ne dana ànd ak ay bokkam ak taalibe yi bu ma tuddee ay bokkam mooy njabootu sëriñ Tuubaa gi ci ni mu koy faral di waxee ne kër Cheikh Mahamadul Fadal ak kër Cheikh Abdoul Khadir séddoo naa leen loolu moo tax ngay gis Serigne Abibou Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal mu nekk ci sunu wetu càmmoñ Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir nekk ci wetu ndijoor ñoo ànd ko ak seex si nga xamante ne bii seen maam yu baax ya ñoo tak takkoon seen i laxasaay topp ci ginnaaw Serigne Touba di ko ñaqal ba dégg waaw góori Serigne Touba te loolu kenn du ci duutu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ñu fekk fi Serigne Falilou Fall euh, moom Serigne Amdi Yacine Fall mu ànd ak njaboot gi yëpp nag ñu fas yéene yëkkati ay kàddu woote liggéey bi nga xam ne la 11 incha allahu décembre lay doon départ bi ca jëm si nag Daaru Salaam bokki barga ci bàcc gerte gi roñ ngooñ mi jëri ko roñ gerte gi ñu bàyyee kàddu gi ak Serigne Habibou Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal. jërëjëf Serigne Touba euh, ñu ngi ndokkeel di woo jamono jëpp àdduna sépp te wax ne <coughs> liggéey bii ñëwati na ñu fekk ko daaw yàgg fekk ko ren yàlla fekk ay doon yu bari bari te sëriñ bii nga xam ne moom koy ko yàgg jiite ki koy liggéeyal yàgg ko yàgg koo liggéeyaloo ko wuyu si ñu yàgg ko wuyu si ànd ko murid yëpp taalibe sëriñ Tuubaa yëpp ñu ngi woote ci turu sëñ Abo mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Modou Fadal ak njabootu sëñ Tuubaa gépp njabootu Cheikh Modou ndax liggéey bi moom sëñ Tuubaa ko moom liggéey bi sëñ Tuubaa kon ku tax ku tax sëñ Tuubaa nga ñu ngi lay woo ñëpp bu ci kër Cheikh Modou Bousso ba ci kër Cheikh si euh, ñëpp ci seen biir kon ñu ngi lay ñëpp euh, ci liggéey bi sëñ Amsa bi nga xam ne le 11 novembre lay nekk décembre ñaan ñu teew ko ci at jàmm tugg ci bismillah maanaam gën ci alhamdulilah rabbil alamin di gën a soññ suñu bokk yi tamit nag ndax man Baye Fall laa euh, maa ngi leen gën a wooti ndax ñun liggéey joxe dañ xam ñaq ñaq ñaq ñuqi kon maa ngi ci woo murid yëpp na ñëw ko bëgg Sadio Faye daal ñoo ñëw fii euh, liggéey Sëriñ Tuubaa nag moom bu lay Sëriñ Tuubaa liggéey doon doy na waaye bu lay fay amu foo def du tax bàyyi kon li gën ci àdduna alaxir mooy liggéey Sëriñ Tuubaa ñaqal ko kon yàlla ñu Sëriñ Tuubaa na ko jëf yi suñu am satu ñu ngi baax a baax da nuyu sëñ Sidi ci kàddu ak kàddoom ak ñun ñëpp bi siyaas yi nga xam ne ñoom seen maam ya gàddu dañu da ñëw yónnee addiye joxe ko ndax liggéey lépp koy doxal xaalis dana doxal liggéey euh, bàcc dana doxal liggéey fadonaaf dana doxal liggéey indi sa oli transport dana doxal liggéey joxe togg ay ñam indi dama ñu wooti ñi nga xam ne kuréel bi nga xam ne di ko ànd ñoom te muy kuréel bi liggéey sëñ Tuubaa rek muy waa Tuubaa kanam kon maa ngi woo ñëpp ko xam ne euh, woo nañ la nga ñëw liggéey bokk ci liggéey booba woo nañ nga ñëw bokk ci bii ñun ñëpp dañoo jàpp ci saayir jàpp ci baatin euh, jàpp ci saayir si mooy day day day day ñuqi di ñukk euh, ñaq ko defee bëgg dañ ko am. sëñ yàlla nam ko daa defee mu sotti tool yi mu ci ndam mu amaat ko ci mm, di ci soññ nag mbokki taalibe bi yëpp nag liggéey bu xew kër Sëñ Abdou Lahad moom kër Sëñ Abdou Khadre ma ngi biir ndax ñoom ñaar. yàlla leen boole njabootu sëriñ Tuubaa gépp si yàlla leen boole sëriñ Tuubaa boole leen waaye tamit nag dañ ci am taxsiis ndax sëñ Blaat Mbàkke moo waxoon ci làmmiñam ne diggante ak sëñ Abdou Xaadir goppal ak ëllër dañ leen di boole jëfandikoo baadoo baadoo jëfandikoo kon nag loolu la xam nañ ko baax fas yéene nañ ak njabootu sëriñ Abdou Xaadir gépp lu yëngu ci kër googu rek ñu bokk ko ñoom ni ka ni nga xamee ñooy dul yëngu suñu kër gi ñoom ñëpp dañ koy bokk ak ñun xam nañ ne benn lan jabatu suñu toog benn lan sax kon nag ñu ngi ciy soññi ñëpp nag di ci woo ci ñëpp. sëñ Abibu sëñ Sidi sëñ Abdou maa ngi leen di nuyu di leen sant leen gërëm seen tànk yi ngeen ñëw ngir man bokk ak moom mbégte mii du coono mbégte laa koy jàppee njëriñ la te njaañ njaañu rek la jaañ kon nag damaa bëgg a bokk ak njaañ ñëpp kon damay tëjee way sëñ bay jaxas rek daf ne lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ni ab sëriñ du bëgg nit ba fam njariñ jox ko topp ndigalam boo bëgg a tee ci sab sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ko koy joxe njariñ mu di la jax ay njariñam bul jaay sabab bu ndax xamal ni kat dee fu la jox lu dul li ngay def ak wax ak dëgg daal am xorom kon nag loolu lépp mënees na koo sàkku am ko fii kon ñu ngi woo jullit di woo taalibe ci liggéey sëñ Tuubaa boo xam ne kenn nattaliwu liggéey sëñ Tuubaa la ndax dëkk bi sëñ Abdu Lahat ko sañoon ci liggéey sëñ Tuubaa ba jógee fi sëñ si taxawee noonu mu nekk diggante xel koom ak euh, sëñ Saliou waaw ak ñi bi euh, lépp di tool yi barke di tool yi ngërëm di tool yi kon nag ñu ngi woon ñëpp ci loolu fi nekk dañ bokk tamit njëriñ ñu bokk ak yéen te di ci woo bëgg ngeen jëriñoo kon ku ñëw yàlla na nga jëriñu tey ëllëg ku bëgg a ñëw te mën a jëm yàlla nga jëriñu ndax yéene moo ëpp fay jëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah loolu nga tey ji sëñ Bay Jaxate ci yokkal mm-hmm. loo xam ne ma ma jimboo rek mm-hmm. euh, sëñ Bay Jaxate dafa wax ne sëñ doo teggi doo doo teggee doo teggee mm-hmm. waaw doo teggi doo teggee doo delloo loxo aji laaj te fu ñu la yaakaar tos yàlla mi kenn bëju la